ñamale gi dañuy dikk rek ci ñaari mbir gannaaw bi ñu ubbee loolu mu dugg ci ñamale gi ñaan ci màggal gi mooy mbirum imaam Gallaajo mbokk yi bare bari fan yi ñu ngi déggoon benn imaam boo xam ne dañ ko convoqué woon fële ca tribunal ba war ko àtte te ñu ne imaam bi li taxoon ñu war ko àtte mooy sunuy dëkkandoo yu nu dëkkal ci réew mi bokk ñu ñoom wenn yoon wu ñu nekk ñu ñu nekk ci lislaam ñoom ñu leen di tuddee ay chrétien la am jenn wax joo xam ne imaam bi waxoon na ko ñenn ca biir kuréel booba noonu le wax jooju noonu ñu jël ko euh, moomale ko seen bopp ba tax na ñu pelante woon ko ca loola porté ko pelante ba yoon am ci yoon liñ ci bëgg a wax yàlla ñu yàlla feccil sunu làmmiñ ba liñ ci gëm mu nekk sunu pas-pas ñu waxee ko ni ñu ko gëmee te am na mbokk yu ma ci jote waxal la ma waxoon ak ñoom rek laay nettaliwaat mooy imaam bi déglu naa waxam déglu naa liñ ci dagg déglu naa yi tamit la jiitu wax ji wax ji conférence la bu mu defee woon fële ca gore fa la wax ji juddoo am thème bu mu doon terete ba yegg ci diggante boobu noonu am wax ju mu wax wax jooju noonu nag mu wax la mu wax de dëgg la waaye wax ja na mu ko waxee moo juunu imaam bi comprendre naa man li mu bëggoon a wax waaye ni ko waxee njuumte la il faut ñu accepter loolu il faut ñu accepter ne wax ji am na njuumte ci ñun ñi nga xam ne nii ñoo nekk bokk ak moom benn kuréel bu ñu nekk il faut ñu accepter loolu première mooy wax ji am na njuumte ku ànd ak moom ku nekk loolu moom accepter ko soo ko bañee yi tamit wax ji am na njuumte man nangu naa ne wax ji am na njuumte waaye tamit il faut keneen ki nga xam ne jàpp na ne daf leen a tooñ ñoo xam ne imam bi li mu wax dëgg la waaye nam ko waxee tamit moo am njuumte kooku it il faut mu accepter loolu lan laa bëgg a wax ci lu mel noonu quatre-vingt-quinze pour cent musulmans boo leen tuddee Sénégal ne cinq pour cent cinq pour cent am nañu ko moom Sénégal boo ne cinq pour cent ne quatre-vingt-quinze pour cent am na kuréel buñ ko askanale ci ñaari kuréel yi ma xaaj muy jullit ak ku dul jullit kon boo ne jullit ñi ñoo mel ni sàggan ba cinq pour cent yële ñoo daganal njaaloo daganal ngóor jigéen daganal daganal yu bari yi mu tudd cinq pour cent yooyu mënuñoo tuddee seen bopp lu dul kuréel boobu noonu le dañuy jàpp ne ñoom ñooy 5 pour cent yi li tax lan moo tax ma ne wax ji dëgg la wax ji dëgg la mooy ñi daganal yooyu mu tudd du cinq pour cent yi mais laïcité la laïcité la jullit ñi sàggan nag ñu dul jullit ba laïcité dugg ci seen biir te ay loi yoo xam ne moo daganal ngóor jigéen moom laïcité moo daganal sàcc moom laïcité laïcité waaw laïcité moo daganal sax ci ndax xaraamul bu mu am trace rek ci laïcité moo daganal jigéen góor moo daganal njaaloo lépp laïcité moo ko daganal mais nekkul 5 pour cent yoo xam ne dañoo bokk ñoom réew mi ñuy kuréel bu ñu bokkalul pas-pas ñoo daganal yu mel noonu déedéet 5 pour cent yi bu fekkee ne li ñuy tuddee 5 pour cent muy catholique yi nu njaaloo daganul daganaluñu ngóor jigéen. ndax diine ju bàyyeekoo ci asamaan ju daganal njaaloo ngóor jigéen amul et cetera et cetera et cetera kon boo ne cinq pour cent yi ñoo daganal nangam cinq pour cent yu am ñu leen di tuddee day mel ni wax ji ca ñooña lañ jëm te man ni ma jàppee waxu imam bi wax ji mi ngi ko doon jëmale ci laïcité mais pas cinq pour cent yi man noonu laa déggee wax ji te wax ji tamit jàpp naa ne moom loolu la ci jublu wolof nag mooy wax benn wax ne macc nu dimbu dana tax démb weex màccinu démb dana tax dimbu weex am na loo xam ne da nga ko bëgg a wax waaye na koy waxee mooy yàq wax ja kon imaam bi cent pour cent li mu wax dëgg la ndax yàgg nañ ko yàgg nañ ko wax mun nañoo nekk quatre-vingt-quinze pour cent ci am réew ba noppi sàngaraag njaaloog lépp nekk ci biir réew mi ana jullit ñi ba am lu ñëw dicté seen loi loi boobu di dox ka loi kalimatu la ilaha illa allah muhammadun rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam réew mu quatre-vingt-quinze pour cent musulman nekk te yàlla amu fa baat mais loolu cinq pour cent yi ñuy wax ñu ko de ndax cinq pour cent yi la leen dal te fa ñu ëppee moo dal jullit ñi fii nu ëppee boo demee France gële nga xam ne ñii cinq pour cent ñun ci côté bi nga xamee ne noonu lañ ko jàppee ñun fii nii muy suñu waa mbokk jàng bi jàngu bi boo demee fa nekkoon not fa ba laïcité di laata dikk mais yi laïcité daganal yëpp biir biir France mais jàngu ba def ko fa bañoon te ba léegi sax maa ngi jàpp ma ngay woy di ko fa bañ mais la fa dugg ba ñëw dominer seen pas-pas boobu noonu dicté ay loi moo dugg fii ci sun quatre-vingt-quinze pour cent yi dicté ay loi am ba daganal yu bon yii te benn ci biir yu bon yooyu mooy bii ñuy bëgg a waxtaanee muy njaaloo kon su ma doon wax ci palaasam quatre-vingt-quinze pour cent musulman sàggan a sàggan ba laïcité ñëw daganal ngóor jigéen daganal franc-maçonnerie daganal njaaloo et cetera et cetera mais pas cinq pour cent ndax bi fi ngoor jigéen di nekk ak euh, nangam ak nangam ak nangam ak nangam ak nangam ak nangam yooyu noonu le mi ngi fi woon waaye li ko fi may doole ba tax léegi yàlla mënatu la àtte ci njaalo laïcité moo tax ku sàcc nañu dagg loxoom ci quatre-vingt-quinze pour cent yi lu tax mënuñ ko appliquer laïcité la góor jigéen bu ñu amee ci moom preuve góor guy ànd ak góor yenent bi dane faqtulul faaila wal mafuula bi ka ka nekk góor di ànd ak moromu góoram ñoom ñaar ñëpp nañ leen reen di la yenent bi sallallahu alayhi wax lu tax mënuñ ko appliquer mais laïcité la laïcité la ku njaaloo nañ ko caw téeméeri yar bu dee ne mosula am borom kër bu dee ne mosula takk soxna su mosee am borom kër su mosee takk soxna nañu ko rëj mu nañ ko jam ba mu faatu lu tax mënuñoo appliquer loolu noonu le laïcité la kon imam Galadio Ka palaasu cinq pour cent mooy laïcité mais pas cinq pour cent comme kuréel boobu noonu le loolu il faut ñu bokk ko accepter kon bu fekkee ne loolu leer na ne moom la bëggoon a wax te jàpp naa ne loolu la bëggoon a wax loolu laa jàpp ndax xam naa fi niveau am di toll ci xam àdduna ku yàgg a wax du mos a jàpp mukk ne benn kuréel boo xam ne am nañu ngëm-ngëm bu bokk na l'islam fii ñoo imposé lu ndax loolu moom amul amul dara lu mën a pour ne kuréel boobu dañoo dagganal yi amul su loolu amoon kon seen église ba ngay dem fekk fa yooyu noonu le ñu ko fay jàngale mais amul kon du ko tudd jullit du tudd catholique koo xam ne nii nangu nga ngóor jigéen wala yeneen yu bon yooyu yëpp nga xam ne nii tudd na ko wax ji lay laïcité mooy boroom su loolu leeree ne wax ji kat nekkul benn kuréel moo ko moom defe naa war nañoo mën a waxtaan ba juboo dem ci yoon bañ cee am yoon ndax am na yoo xam ne nii bu ñu toogee ci Sénégal ñu ne kat katolik ba am na jafe-jafeeg jullit ba portante nañ plainte demante nañ tribunal mën nañ xam fu muy tàmbalee mais bu ñu xam fu mu yem il faut ñu am tolerance il faut ñu am tolérance yaatalante dënn kenn ku nekk mën nga dégg benn wax bu la sokkee ci sa morom mais jëlal wax ji nga utal ko ay balance yu bari yoo ko teg dana ci am boo am poids boo xam ne nii wax ji na nga ko mën a dékku tey jullit ñi am na lu ñu dégg loo xam ne nii kenn ku bokkul ci seen kuréel wax na ko jëm si ci seen diine ci daara maa ngi gis fan yooyu vidéo yi ñu ngi koy tasaare kenn ku toogoon benn mbokk làbbe mu toog ci benn palaato wax ci daara yi wax ci lu day waar ci daara joo xam ne du ñu jàng tubaab mu wane ne daanaka daara jooju noonu le du tekki dara ka ca jàngee mais wax jooju am na kenn koo xam ne jullit la bu ko mënoon jël ëllëg exploité ko mais jullit ñi wax jooju yàgg na lool am na ñenn ñoo xam ne déggoon nañ ko xëy na soke na leen mais ñu xam ne ñoo bokk réew mi jarul a yëkkati di ko métitlu ndax am na lu mën a jur ci fitna te lu jur jàmm moom moo gën te yu mel nii bu fekkee dafa juddu imam ba kat kuréel bële porté nañ ko plainte kuréel bii tamit ëllëg mën na ñëw jug porté plainte kenn ku dul imaam di labbe wala leneen leneen te loolu noon leen nañ bàyyi xel ne réew mi du ci gañee de mais noon yi nga xam ne ñoo sëpp réew mi yi fi nekk bëg cee teg loxo ñooñu ñoo ci gañee attention attention attention attention jullit ñaak catholique yi am nañu problème ci Sénégal ah buñ ko xeeb de tàkk-tàkk bu ndaw lay doon boo xam ne ña koy jéem a ëf ba mu tàkk wallahi bu ñuy wallu si ñun ñëpp ñooy am lu ñuy métti ña koy ëf ba muy tàkk danañ ci wallu seeg sunu gaz yi sunu gaz bi sunu pétrole bi sunu zircon bi sunu sunu yooyu xam leen ne yàlla bàddil na ko senegal ba noppi waaye am na ñoo xam ne fu ne ñu fay jaar ngir nan la ñuy def ba loolu ñu yëkkati ñu jël seen loxo teg ko ca kaw loolu noonu li te bii benn la ci bunt yiñ mën a jaar nañ ci bàyyi xel kon ñuy sàkkuwaat ndaw ñooñu nga xam ne ñoo jóg bokk ci kuréel boobu may tudd ne ñu ngi porté plainte imaam bi ngal ñu ngi leen di ñaan seeni kilifa nañ wax ak ñoom ñu dellu si ginnaaw ñu retiré plainte bi annulé lépp lu jëm ci procédure imaam baag waa jàngu ba ngal la ku ci mën a dox na ci dox ku ci mën a wax na ci wax te ëpp naa xeeb ëpp naa xeeb su ko defee imam Galaajo wax ji am na noo xam ne nii màccinu dimb dana tax dimbu weex il faut ñu accepter ko am na ci wax ji waxin wi wax ji dëgg la mais waxin wi am na njuumti loolu il faut ñu ko wax ji dëgg la mais waxin wi am na njuumte waxin wi mooy cinq pour cent yi mu tudd te palaasu cinq pour cent ngay raxas teg fa laïcité wax ji laïcité moom moo ko moom mais du cinq pour cent boo xam ne comme benn kuréel la 5 pour cent boobu sax nit mënoon na ko dégg déggin bu rafet moomale cinq pour cent yi rek ne 5 pour cent mooy ñi nga xam ne gëm nañu yàlla mooy 95 pour cent yi ñi gëmul yàlla di 5 pour cent ñi gëmul yàlla nag boobaa amul kenn koo xam ne nii ku gëmul yàlla ñu mën la tuddee ne waa jàngu bi la wala euh, yahud ya la wala nangam ak nangam mais bu boobaa ba tey rek laïcité moom mooy taxawaat. ko defee loolu noonu le mënuñ ci woon a ñàkk wax incha allahu taala danañ wéy lii nga xam ne moom lañ ci wax moo ci sunu pas-pas di ànd ak imam bi nag cent pour cent waaw di ànd ak moom cent pour cent ndax nag wax ji dañ ko dégg waaw dañ ko dégg comprendre fi muy waxee moo tax ñu koy soutenir ci wax ji mais waxin wi pa waxin wi moom d'accorduñ ci te waxin wi bu dee moo sokkee ñu ko porte plainte ñu comprendre ko noonu ñu wootewaat ci jàmm ndax jàmm moom moo gën a xay loolu ñu ngi koy sàkk bu baax a baax di ñaan yàlla yàlla na jàmm wéy di sax senegal rawatina diggante ñaari kuréel yi nga xam ne nii munuñoo xeexoo waaw munuñoo xeexoo tey boo demee kër jullit ba yaa ngi fa fekk nangami euh, kudul jullit katolik tey am na koo xam ne ay sëtam ay sëtaatam ay sëtaatam ay sëtaatam seen yaay seen yaay wala seen maam bokkul ak moom diine yow jullit bi yaa ngi dem ci kër ku dul jullit jël fa soxna am fa doom mais loolu du jeex Sénégal ñaata nit ñooy toog ne sama papa jullit la sama yaay katolik la sama maam jullit la bu góor sama maam bu jigéen katolik la mais loolu noonu ne ba léegi moo am senegal kon ñooñu jàmm dong moom moo leen jig te jàmm jooju moo fi mos a am nañ ko suuxat yenn yi ñu muñalante ko ci sunu diggante ndax sunu diggante rekk la xaj ko defee loolu lañ doon wax ci loolu noonu li lu ci jub loolu lañ ci jublu woon ngir lépp rafet lu ci dëng tamit ñu jéggal na ko xam ne pas-pas bu sell bu nu am ci déglu waxu imaam bi moo waral ñu yëkkati kàddu yooyu noonu la tabaarakallaahu su ko defee kon li ciy topp laataa ñuy dugg ci sunu tem